def naa ni Amadou Ba la euh, candidat de Benno mais depuis lors je l'ai lu choix bu bu ñu mënti def biir Benno quel que puisse être le choix le choix sera contesté bu képp ku ñu mënoon tànn y aura des contestations te euh, Amadou baax oui c'est le choix de raison Euh, suñu suñu waxante rek mais itam choix des raisons boobu dafa am ay ñoo xam ne mën nañ leen tuddee ay légitimistes. ñu nekk mhm. biir ba APR surtout. Mhm. ñoom du ñu nangu choix Amadou Ba. parce que ñoom waxoon nañ ko ñun nous sommes des apéristes de lait on est là depuis le début ñoo reyante si opposition bi ba jot nguur gi en 2012. kon boo ku ñëw si parti bi après 2012 mënuñoo gën a yay bañ koy jox li nga xam moo di candidat mhm. te Abdoulaye Daouda Diallo c'est moo nekk si si kanam. ànd seeg. ñu mu si war a àndal ñoom ab dumbo mhm. ànd seeg ñoom <coughs> euh, dégg nga maam dumbur sow ak ñeneen ak ñeneen am na clan boo xam ne en réalité na ca kanam mhm. donc te xam nañu ni <coughs> diggante Amadou Ba ak Abdoulaye daaw du et au-delà au, au sein de la paire et au-delà même dans Benno il des guerres intestines il y a une réelle crise de leadership mhm. loolu moo di dëgg la paire n'est pas un parti structuré mus naa ko wax un haut responsable ma ne ko yéen ba nga ñëwee pouvoir da ngeen waroon am xel ak xalaat dem congrès def li nga xam ni moo di élection yi base bi fal ñu xam kan mooy patron Dakar. Hmm. kan mooy patron Ndar kan mooy patron Ziguinchor légitimement su boobaa nag yenn jafe-jafe yi dootoo leen ko am mais malheureusement vous êtes une armée mexicaine il y a un leader qui est au sommet ok à la base il y a un conglomérat de responsables te malheureusement 2012 ba jour déclaration bi mu naan du ma bokk il n'y avait qu'une constante au niveau de l'APR et de Benno c'était le président Macky mais ngoon bu mu nee bokkatuma la constante était devenue une variable